parce que sam man dama ko yar bëgg ko nekk ak moom ak papaam papaam boo demoon laaj ko kan ci nga gën a bëgg Tivaouane man la lay wax donc loolu man j'ai cherché ci côté boobu ma développé ko mais ci côté travail mois j'ai vu que ni responsabilité bi mu ma waroon a jox pour man ma liggéeyal ko sama commencé woon ko di ko défendre il n'a pas été jusqu'au bout pour jox ma cër boobu donc yow danga yaakaar ni dafla dafla dafla dafla daf dafla wo la sëlëm daf la ba nga ñëw te li nga lii sa cër carrément joxulako non joxuñu mako buñ mako ko joxoon en changé na. léegi bi la en parlant de mairie biñ la wowe dila wax pour nga ñew pour jox la état civil. am nga ci proposition yo xam ne say morom amuñu ko ci. té pourtant do conseil municipal boko ci ben ben cellule. biñ la wowe wax la ni la dañ lay jox état civil. état civil bi parce que dañu yaakaar ni ça marche pas ñu ni dal la koy jox état civil bi gis nañ ni aussi nit ñang koy critiquer bu baax baax quel est le problème au niveau de l'état civil non xam nga problème état civil Tivaouane man dama koy wax et je parle en toute honnêteté la première le premier problème pour l'état civil population bi ñoko fi tek ñom ñoo dem lak maire bi loolu man dama koy wax sax nan bis buma yalla defone ma hérité dama parce que lu toll ni ñu nit sont toujours là. mais nañ ni la que ni ñi ko def. ils n'ont jamais été devant la justice donc c'est un lourd handicap pour xamni population une fois waxna ko les jeunes ils le ñu ni non mani c'est une façon de dire budul sa nijaay wala kenn koo xam ni mbokk la ci Tivaouane dem na lakk suñu état civil beneen problème bi loolu moom moo perdurer ci anarchie bi ñuy dund anarchie bi ñuy dund nag du dara pour manque d'effectif boo xam ni nekk na à la hauteur de l'état civil pour mën ko doxal xam nga tey nii lu mel ni état civil nga xam ni dafa discret archive nga xam ni ku mel ni Cheikh Diop depuis ñaata at laa ko xam ci archive yi ñoom ay ñoom euh, Kilo, loo Mansour loo fa nek di collaborer ak ñoom mais depuis lors ben mom mo nek ci archive di fa ñi ci des ñep dañuy ñew dugg rek xolal seen bop seen registre dem fu melni ni état civil nga xamni ni les plus grands secrets de la ville fa lañ nek ñu indi ay agents yo xamni xamuñu dara ci état civil jël ñi nga xamni sont les agents de la mairie tek leen fële ci biti jël ñi nga xamni sont des stagiaire ñuy liggéey ci biir loolu moo indi anarchie bi ba pare benn dama koy wax xam nga Tivaouane ñun dañu bari euh, jàmm suñu diggante waaw loo wax rek ñu ni ña liggéey trente wala soixante pour cent sont très indisciplinés faalewuñu kenn beneen bi mooy amuñu benn notion ci li ñuy liggéey xam nga ñett amul kilifa amul kilifa ku nekk lu la neex ngay def affaire qui mu ni nii di nga inscription naissance et mariage yi fan le mujj les gens ont dû renoncer parce que ñom ñoy am sen idée rek ñëw di def li len neex donc yoyu mom moy handicap bi ba paré toujours tuaan rek dama koy baña wax boo jëlee ñi nga xam ne ñoom ñoo moom poste yi nga teg leen ci biti ñuy toog di waxtaan nga jël ay stagiaires yoo xam ni mësuñoo xam état civil nga leen di yóbbu ci ay registre ñuy dem di xool di nekk di def ay affaires yoo xam ni ku ci nekk am na ñoo xam ni ci maire bi la ñuy dund ci état civil bi. pour dund ci pour pour ñëw ci li ngay wax. Mhm. gisoon nañ fii ci yàggul dara. Mhm. ay nit ñu amoon ay demele ci par rapport ak justice. Mhm. ci lu jëm ci état civil bi. ñoo xam ni dañ doon def ay trafic ci euh, kayitu juddu ja jàmbur yi ba ñu jàpp leen ci. ak ak jël ay falsifié ay papier. ci lu toll nu Tivaouane ak ni mu am ci ci ci ci ci ci ci sur le plan mondial ni mu toll ba ñëpp dégg ko ñëpp xam fan mooy Tivaouane yaakaar lan nga yaakaar nan nga gisee comportement yooyu nga xam ni ba léegi. mën nañu wax ne jógeegul ci état civil bi lan nga gisee comportement boobu nit ñi am. non xam nga mënu fa jógee parce que xam nga lan moo tax mënu fa jógee état civil bi moo amul responsable moo amul kilifa li may wax je veux le dire clair. mais actuellement ni kan moo fa nekk comme kilifa. benn nit bi Tafa Diagne moo yore état civil moo yore mbedd yi moo yore daral bi moo yore marché bi moo yore lépp c'est pas benn jalousie hein c'est parce que loolu moo tax Tivaouane est mal géré. man li may wax moom jorul sama dara bu ñu dajee dañuy nuyoonte mais cër biñ ko jox at kilifteef giñ ko jox ci dëkk bi jox ko ko si suñu ko maire yi loolu moom moo ñu tardeel c'est benn nit bi nga xam ne moom moo ko ko jox moom rek lay déglu adjoint maire yi demal nga laaj leen kan moo ci am responsabilité. mais yow wax léegi ni ma euh, Diagne Sy sa rakk la. nga xam ko bu yàgg. Mhm. ngeen am ay rapport mhm. yu jige mhm. yow. Linga est-ce que nous woon permettre nga dem ba tout ce qui se passe au niveau de la mairie parce que les gens souffrent non xam nga xam nga bu la waxee man ak ni ñu mel damay draay bi def sama xol dama ko bëgg de ay karim la wax se wax naa man buma ma c'est ay mbokam duñ ma bàyyi ma fen biñ né suba lañuy ñuy fal maire billaahi wallaahi taalaahi dama ni damay yolleeku ndànk dem ci Serigne Abdou niko ñun jañ ci liñu bëgg mo mu nekk fi mer parce que dama gisoon les concurrents potentiels ma xol ni mom il était le plus méritant ci domaine bi ma ko gisee won bok mais mais ma ngi dégg tamit nga defal ko pour Cheikh Diouf ah parce que tu nga tu dama bëgg que Tivaouane revient au doomu Tivaouane Lolo, ça fait partie de mes objectifs mais tam c'est doomu Tivaouane sa liggéeyaloo waa Tivaouane amul sens parce que cher Diouf c'est un méritant Taini, rien ne vaut l'expérience il pouvait être maire def li muy def ma possibilité mënuma ko juger yaakaar lay am ci mom comme le font les Européens Si me décevoir bu ne vais pas ma la fal c'est comme le maire actuel Diagne j'avais beaucoup d'espoir ci parce que je me ni doomu Tivaouane le mérité de war ko vu sa position le contexte familial famille am il pouvait faire de Tivaouane vraiment une ville extraordinaire. gars dañuy wax dañuy wax ni que est-ce que du li nga li posé candidature jàlluloo moo tax ngay aigri di casse di mer ni éternel quoi. déggoo li ma la xoolal moo tax ma ni la gis nga jaañ jour bi ñu defee élection ma tëdd sama lal dégg ñu joxe résultat yi dewuma sax vote ñu ni le premier maire a été nommé Diagne Sy Mbengue j'ai intervenu à Albourakh ma ni Tivaouane a été sauvé de la honte parce que dañ ko jox kiñ ko ba léegi ma toog suñu kër ba quatre heures ma ni non sam boy in foog ma dem féliciter ko bi ma jógee di ñëw seen kër buntu kër ñoom euh, Ibali laa daje cortége bi mu arrêté otoom moom wàcce veeram ni ma grand kontaan naa dégg naa li nga wax kon awma benn rancœur mais doxalin bi moo ma neexul ak ñi ñu dénk dëkk bi man je sais que ni ñi ñu dénk dëkk bi mënuñu fee changer puso waaw léegi ñu kii di Lopez xam ko ci sport mhm. nga nekkoon fi entraîneur mhm. ben équipe bu nekkoon équipe bu nawetaan avant de voyager. C'est commercial. ñu avons ni que dafa as sport. tout récemment gis nañ fi renaissance handball bu Tivaouane bi. am ay tolof tolof. ci biñu qualifier qualifié Coupe d'Afrique. Nous avons ñu que stade bi ni mu ci bu sur le plan sportif lan moo ci sa parce que la majeure partie ay jeune. lañu lan moo ci sa xalaat ci ci sport ni mu sooxee ci c'est un avantage je boo xam ma toogoon fii di wax ba sport day un handicap mais l'handicap du sport à l'handicap du sport à Tivaouane ma wax le honnêtement dafa am benn côté boo xam que nit def de Tivaouane une ville religieuse ville religieuse sur tous les plans mm-hmm. religieuse ba nga ils peuvent ils veulent priver la jeunesse de divertissement c'est loolu ça fait de la jeunesse une jeunesse mourante yow ya ko wax léegi mande man de gis ni ma li fi nawetaan jaar li fi sport jaar li fi contexte yu nekk jaar ngay dem fu mel ni sa def suñu ñi ñëpp dañ fa daan baal di fa def lu nekk ma gis sam papa Serigne da daan romb buntu sa def ku xam tiit sa def fa nga daan baale saa yu jógee ay numaa di fa la daan jaar ñépp sëgg ni si si si mësumaa gis mu ni li xale yi di def fee parce que gëmoon na ni jeunesse bi ñu ngi ci seeni li ñuy def may déglu sama guide muy Serigne Cheikh mu wax ni bokk sa taysir at dem def say activité yàqul dara mu wax ci ay cinéma loo xam ni divertissement la ñu tere ko ko mu ni lii donc ñooñu nga xam ni ñun ñooy suñuy royukaay bu ñu bàyyee la jeunesse ci seeni temps ñu def li ñu def je me vois mal des jeunes de modernes, de ce temps-ci nous bëgg la jeunesse de divertissement xam nga Tivaouane c'est une ville sportive Tuan, da ngay wax nawetaan tu ñu li fi jaay ci jour nga dem ci Damels nga gis suñu équipe a été le premier département bu accéder en première division nationale au Sénégal nga gis par exemple li fi changé ñu dem indi fi handball que deux fois finaliste ñew gagner gagné coupe du Sénégal nga dem ci basket bi gis progression yi ñuy def gis arts martiaux yi gis leneen c'est boobu ba léegi mënuñoo gis structure bu taxaw boo xam ni dina wane ni jeunes yi yéen ñu ngi leen di accompagner dans ce que vous amul ay salle pour dojo amul ay salle pour spectacle surtout spectacle Tivaouane ku ko xam-xam ni c'est une ville culturelle parce que ku mel ni ay ñandoxum dem nañ fi nekk fi ay champion du Sénégal mais tay ni buñ ni la won wa Kuli ñoy théâtre yow do dem sétani fan ngay sétani on nous a privé de cette salle bo xamni tay suñu sœur yi ak suñu jarbaat yi ci mbedd yi lañuy nekk di def ay tante waaw ah, parce que parce que légui gis nañ ni sax euh, signification ASC e, mhm. association mhm. sportive et culturelle mhm. légui culturelle ba dañ ko dindi na le ba moi waral li que ni théâtre parce que trop sur le plan culturel tu est une ville morte maintenant sur le plan sportif mm-hmm. bi nous infrastructure mm-hmm. sportive, yi mm-hmm. améliorer voire même changer nouvelle génération lan nga que wax veux xam nga li ma lay quartiers sont un peu périphériques a ay espace yo xamni terrain basket wala terrain handball mën na fa am ça ne fait que développer le sport tey nii ay quartier yu melni euh, quartiers ay quartier périphérique yi nga xamni ni nek ci extrémité yi buñ fa ay terrain basket ay terrain handball ça va permettre aux jeunes de ces quartiers de se divertir xam nga Tivaouane moy lima ma lay wax dañuy jël côté religieux bi indi ko ci jeunesse bi ba telle sorte que ni on est en train de tuer la jeunesse parce que

on n'a jamais eu l'initiative pour ni officiellement dañuy stade stade tafal ko population be ci jitu rek diko wax ba mu fa donc les gens buñu nopi won sax dinañ ko ont parce que yoyu c'est des handicaps amul salle bo xamni meun dojo di ay arts wala lenen on n'a pas de terrain handball xam on n'a pas de terrain de basket xam nga yooyu yëpp c'est des choses yoo xam ni man man bokk je veux pour la jeunesse c'est dañ ko war a am nañu bàyyi fu ñu dem rek ni boy dem leen jàkk suñu terrain basket bii gis nga ko comment ça a fini on fait un projet indi benn financement jox ko ay nit yoo xam ne bi ñu leen ko joxee ñu war ko defar defaruñ ko lekk nañu suñu xaalis ba pare daal di bàyyi terrain ba noonu mm. donc yooyu man damay gis ni les leaders ñi fi nekk dañuy handicapé la jeunesse parce que dañoo bëgg a gëmloo kër sëriñ si ni leen Tiwaawan bëggatuñ fi fo bëggatuñ fi dundu bëggatuñu xale yi def li ay dara doguma la wax na ko ci benn communiqué benn benn kii mu defoon mm-hmm. ñu bari mere ko ci et c'est parce que il était incompris mm-hmm. à un moment dafa waxoon ni jeune xale yi xale yi xale yi xale yi Tiwaawan ni bëgguñu presque beaucoup mën nañu wax ne bëgguñu dara parce que dañuy il foo leen fekk ñu ngi kii di xaar préparé xadara lu nekk dégg na ko ci alors que bu angle bi mu doon peut-être mooy bii ngay waxee yow. non xoolal xam nga man j'ai suivi le débat mais xam nga ci bir bind nii doo ci mën wax parce que beaucoup de ci duggoon bind li may wax dañuy mais Baba Aïdara man dama ko doon féliciter de la vision qu'il a sur la jeunesse de Tivaouane ñoom ils n'ont rien compris di indi mel ni il cherche à ridiculiser Tivaouane tu ne seras jamais ridicule. Quel que ridiculiser C'est qu'il a voulu que les gens donnent à la jeunesse de Tuan des opportunités. Parce que Wahul Khadra Rek, ay Taïba ngi fi wax na ci ay ICS ay lii tey nii boo demee ay Taïba ay ICS nga gis suñu xale yi bu ñu fay dem ni ñuy sonnee bu ñu ni ñuy fay sans emploi jëluñu leen mais yooyu moom la waa Tuan war a kaas la wax donc man j'ai vu ben côté positif bo xam dañ ko waroon a exploiter tay ni boy wax côté hôpital bi c'est la même chose parce que boy wax hôpital bi tay ni Tivaouane waruñu sax tok ñu naan dañuy wa def téléthon wala lenen c'est honteux. ah ci lo xamni ni dañoo wax ni niveau un le, dañ ko wara def niveau deux ministre bi ñëw promettre ñuko ni il a donné 20 millions pour ñu défar ko bâtiment yi ñu bëgg défar il a dina indi scanner dina def lenen ma gis le ministre est venu deux fois dem ci Khalif. bi deux fois ñëw hôpital on ne lui a jamais parlé de ça les nga bëgg a nekk ci réseaux sociaux yi di wax c'est le même cas à l'esport sports tey nii boo demee stade da ngay gis suñu grillage de protection daanu na ñaata yoon dit ñu ni ñu le stade sera gazonné c'est ay mais déggoo parce que le stade dafa war am un directeur boo xam ni day nekk ca biir moom mooy gérer les fonds gis nga ko tey nii chaque jour, on paye la recette de 15 000 pour les lampes. Mmh. Chaque jour, on paye 5 pour les SAT. Mmh. Mais lolo, c'est des fonds qui devaient être gérés par le directeur des SAT. Nga xamni grillage bu yaq mu def ko defar ko buntu bu yàqu mu defar ko bu nawetaan joté mu dagglu paftani avant bu waré dem nak mairie rendre len compte les faits li mu def les dépenses les frais ñu xamni amna gestion mm. mais bo gisee stade bi ni mu rem nga xamni gañi falé faale wu ñu jeunes xam nga bo démé ci yenen domaine nga xamni la jeunesse man dama len koy wax la jeunesse tivaouanoise est mourante c'est c'est le moment de faire le combat pour won aux politiciens que ni ñun en tant que jeune dafa am nu ñu bëgg a suñu dëkk dafa am nu ñu bëgg a dafa am nu ñu bëgg Tivaouane progresser bo waxé nak moy comme lima lay rek man fi j'ai pas peur de dire les vérités parce que bu ñuy wax doomu Tivaouane yow la wax man la wax keneen la wax mais or il y a des gens plus importants Yo xam par exemple dañoo war a ci Tivaouane Tivaouane c'est une ville bo hamni. ni ni ma président di fi ñëw du ko dem ci benn dëkk dina fi ñëw trois wala quatre fois c'est Tivaouane tey nii amul automobile, amul oto amul camion amul engin amul lenn Lo hamni, ni mën nañ ko nettoyer. Hmm. c'est pourtant am des personnes indispensables yoo xam ni duma ci bañ a wax sax ñuy sous-entendre parce que c'est pas méchant man damay wax doo cër loon ci waxtu dafa jeex mhm. euh, te xam naa ne li nga am ci ci sa xol mhm. ak ci sa xalaat ci ci sa bëgg Tiwaawan bari na ba mënuñu ko mënuñu ko mënuñu ko wax ci benn jataay bi mhm. xam naa dañuy bàyyi nga tàggoo ba jëmmi jamono ñu woowaat la ci beneen ci ci ci ci beneen discussion bu demee nii mhm. ñu fekk sax mu gën a jigee yi nga xam ne mooy élection locale yi mhm. ñu gën ci mën waxtaan ci lu jëm ci Tivaouane mhm. lan mooy sa dernier mot waa pap sama dernier mot vraiment di kontaan ci yow xam nga damay wax naan les médias ça coûte cher matul nga ciy tagg nit matul nga ciy wax nit loo xam ni du moom man cérémonie yu bëri looloo tax duma bëgg a dem parce que dañ fay wax ci nit lo xamni ni doonu ko kuy def lu baax yaa ngi koy def sa kenn du ko yëg donc loolu benn aspect la ma ciy kontaan di la ñaanal lii yàlla nañ dem ba nga def ko télé boo xam ni vraiment fu nit ñi nekk ci àdduna di la seetaan loolu vraiment maa ngi koy ñaan di la wax ni nag comme li nga wax rek des fois bu may bëgg exprimer sur toi j'ai envie d'exploser parce que dafa am dëkk bi lu mu yeyoo dafa am foo xam ni moom laa bëgg a gis Tiwaawan c'est ki ko war a yor dafa war a nekk koo xam ni dafa war a bëgg Tiwaawan bëgg développement Tiwaawan koo xam ni leer na ko ni kii bakkanam ak léppam Tiwaawan la nekk tey nii pour wax la rek benn parenthèse boo xam ni bu ñuy xool ci suñu frères yi suñu dëkkandoo yi muy waa Touba seeni exemple dañ koy jël comme exemple

di la jiital di wax loolu ci yow di wax sama beneen grand xarit Karim Sow dëkk Kër Matar di wax sama jarbaat xalifa di wax nga xam ni moom vraiment c'est une personne extraordinaire boo xam ni du may conseiller day mel ni ministre la toogal wala président parce que il croit en mois ñu koy wax Paya di nuyu xalifa Faye nga xam ni doomu inspecteur Faye la mais man j'ai fait ma campagne avec quatre à cinq personnes moo moo taxit euh, gis nañ ni euh, c'est très important parce que wane nga sa détermination ci Tivaouane wane nga sa amour ci Tivaouane loolu ñu ngi la ciy sant bu baax di la gërëm euh, mbokk yi ñu ngi kontaan bu baax a baax di wax ni que ni tey ki ñu amoon comme invité moo doon mbay Ciss Thiaw ñu gën ko xam ci Lopez muy koo nga xamante ni ku am détermination la ci dëkk bi bëgg dëkkam di ci bay laajtam ba ñëpp xam ko. moo waraloon tey ñu invité ko fii mortal ci li mu xam ci xam-xam ak li mu am ci yéene ci Tiwaawan euh, ki leen ko doon defal di seen xarit di seen doom papa assan mbay fii ci euh, TIV info euh, ba beneen numéro incha allah.